mbokk TV mbokk internet ñi ngi leen di nuyu den ziar den bal wax den balax euh di wax ni tay ñi ngi fi ci Tëngéej tey nag ñëw seet si waa bergerie Nouméran Eh, taxaw ak eh, eh, propriétaire bi ñu koy laaj tur bi nan la kilifa ñu lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax. Hmm? Hmm? si seen ñëw man hmm? si Rufisque cité Sonacos. macha allah voilà. kan mooy euh, originaire Saint-Louis. Uh-huh. mais quand même j'ai grandi def naa ay péripéties yu bëri mais quand même fii Rufisque moom yàgg naa. yaa waaw su may wax sax je dirais que Rufisque quoi laay gën a nekk que Saint-Louisien. ok kañ nga taxawal bergerie bi. il y a cinq ans 2018 à la limite 2018 sama kër laa doon yare. fii ci Rufisque fii ci Rufisque. fii cité mhm. benn moment xar yi xaw xat. Mhm. te du mu nawetoon trop. Mhm. hygiène bi xamul woon demee noonu. donc comme j'avais cet espace là ñu ne pourquoi pas mun na ko indi fi ñu ñu def ko à la va-vite ñu defar rapidement bergerie bi après indi fi xar yi. macha allah macha allah c'était pour sauver quoi parce que xar yi salubrité bi xawoon na jéggi dayoo. Mhm. nawet la woon et tout mais ñu defar fi rapidement. lan moo la motivé woon nga dugg ci laadum bi. ci laadum bi bon comme bépp sénégalais euh, dañ tàmm di yar ay xar. ordinaire ah, okay. di préparer ay tabaski ala limi sa di def def opération tabaski di dem ay ngunjaan and mhm. ak sama ay xalé ok ñu def jëm foofu jënd jaay xar jaay xar karam bon dafa ñu don tante nak tout temps ba tabaski jotaan ñu dem do euh, ngunjaan jënd cent cent cinquante mhm. deux cent non non am foofu ben box mu wacce dawal ba ngunjaan jaay xar yi c'était intéressant xari yi nan mais li si gën a plongé loo si euh, si laadum moom mooy dama benn jeune frère bu nekk soudeur nekk sama xarit nekk sama rak moom dafa bëggoon laadum trop. bien que xamoon naa laadum yi bu baax bu yàgg. mais quand même dugg na mais Cheikh moo insisté ni ma grand nan bàyyi xare yi ñu dem ñu dem si laadum yi. ça peut bien faire bon ñu essayé Abdou Gueye mooy doyen. doyen wa sar saladel mo nu jëk proposer ben ben femelle après Lamine sar comme da ngay dugg di sama jeune frère aussi jox nu ben ben mal bu bu baax ñu démarrer démarré quand même ok mais euh, opération tabaski yooyu da nga naan tak fi teugé diko jaay quelque fois quelque fois doon nañ tak teugé mais le gros lo ñu don def dan ko don defé ak ak ngudjan ok ben moment bon comme xale yi tamit imprégné woon nan surtout Cheikh chaque année ñu dem à la mairie wut place bu baax. ok booy yi dem jënd xar yu bare ñu jaay jaay après sama doom bi dugg ci et tout ils le font chaque année ba daaw ñu ngi ci woon. ok ba léegi incha allah macha mm-hmm. allah mu am lan ko léegi après 2018 nag ba ba la sa waayu Cheikh Tidiane dugalee ci affaire yi da nga jënd commencé kër ga wala da nga defal bergerie bi fii ba pare. non kër ga. Mm-hmm. ñu commencé. ñu gis ni. amélioration mu ngam par rapport à xar yi mhm. mais on n'avait pas de vente et tout. mais ñu ngi doon améliorer xar voilà de par les propositions de chef. grand nañ jënd tel sujet. jël tel sujet ñuy dem. ok su doon commencé. ok di pousse nànk-nànk quoi. ok léegi après ci nga ñëw fii. c'est là ñëw fii. Mhm. bi ñu ñëwee fii nag on a vu que amoon espace bu gën a donc il fallait faire un palier supérieur. Mhm. palier supérieur mooy jënd ay xar yi. am yu gëna rasé comme on dit génétiquement et tout ñu commencé nak di sété ay jibigé mu jaay nu doomu as de pic euh, doomu ki plutôt set euh, DG doomu Picasso. doomu Picasso. voilà ñu commencé ñu jën jën magistrat. Mhm. ñu commencé nak di nank nank. lii nag fu gis vraiment produit bax doomu doomu As de Pique. Mhm. doomu Buur Saalum. Mhm. doomu gouverneur. ngeen di boobaa comme mhm. léegi boobaa léegi ci 2018 ak léegi ci 5 ans yaa a wax ci côté investissement ak fi nga toll noo ko gisee. pare na de côté investissement moom c'est c'est costaud. oui. on encore la rentabilité parce que ñu ngi si ba léegi ñu ngi si phase investissement quand comme les gars yi di wax xar yi xar yi yorewuñ seen bopp. Uh-huh. tu vois yàkkamtuwul nag dañ ne nan investir on va chercher de de bons produits ba nga xamné bu donc il y aura plus à à discuter. Mm. mais pour le moment nous ngi phase de prospecter di di di faire évoluer. Mm-hmm. si mensuration et tout. d'accord d'accord. donc euh, mais parfois du ñàkk di ngeen euh, am yoo leen oui oui Wow. du ñu génné bu ñëw ñu defaat ko si si lekk bi. si xont bi si xont bi. bon comme man tam je me mets pas de mesure xeyna xalé yi man passion bi tam moma ci xaw gëna intérêt ñom dañ dan am seen liñ de bi grand bi mal la ñuy dugal bii maal mais man voilà dama xar buma gis mu neex ma dama ni dama koy jël. koy jël voilà. ñoom nag am na seen ligne de conduite mais man tout le temps je leur yii seen xar la mais gis naa kër diw jot naa ko. ba léegi euh, ñu ñu ñëw ñu ñu dé dafa benn découverte bu def ci foiru Adel bi muy un champion boo xam ne fa la génne. muy mu nekk xar boo xam ne macha allah dafa dafa def benn attraction ci alam bi parce que ba mu ñëwee dugg añoo ñu bëri xamuñ guñu ñu añoo añoo la. mu nekk xar bu rafet xar bu am maturation tey CDM moomu nan la duggee ci yow ak nu mu demee. comme li ma lay wax rek comme ñun tout on est tout le temps à la recherche daaw foire bële dañ demoon yóbbu doomu gouverneur. mu defoon un mètre deux. Hmm. ñu gis fa coro bu bu Cheikh Tidiane Mbaye. Hmm. Bamba ñu gis mu àndoon benn moto de de jours. Hmm. Cheikh ni ma grand. mbote bi mën na def dara comme nag chaque fois dafa ma wax ne mu mbote bi nañ ko jënd yenn saa mu yu bari dinu rëcc mais bii paa mun ma grand bii moom bu mu nu rëcc quoi bu foire passé ñu dem seeti Bamba mu yóbbu na Cheikh Tidiane Mbaye. ok j'avoue que xamu sax mais comme Cheikh insisté woon na ñu dem ñu dem kër Cheikh xool biir xaram yi gis ni quand même mu ngi si élevage bu bu kawe. Mhm. coro kenn du ko werante Cheikh yombalal nu ko ñu xam ne lii mu mën a def ñu laajte papaam mu ne surtout grand raan la ñu ne nekk fa Cheikh Cheikh Tidiane yombalal nu ko ñu ne ñu jël ok que xëy na li nu Cheikh waxoon sax gis nañ ko parce que ne nu nañu bii mën na mën champion yu fi nekk mais ñun tamit boobu on était déjà fou de bi mm-hmm. ñu ne lu mu nu jaral dinañ ko jënd yàlla def nag Cheikh Tidiane Mbaye dama àndoon ak sama benn xarit mu nekk loolu noonu aéroport mu yombalal na ko vraiment mu ñëw ci bergerie bi on a mis moom. voilà. mu ñëw fi Mbote ah. Mbote bi mu fi ñëw il avait deux mois vingt cinq jours. ok tey mu ñëw di def euh, exploit bi mu def gagné gagné gagné foire Adel Saladel nga xam ñëpp xam ñu foire bu mag la ay champion ñoo fay daje. est-ce que mën naa ni mooy euh, xaar boo nga xam ni war euh, niveau de la maladie mais c'est sûr c'est sûr parce que le niveau bi mu évolué On daf s'attendait pas que à 12 mois. mu toll woon noonu. mais il faut reconnaître que surtout production yi mu on est sûr que mu ngi révolutionner. Euh, on n'est pas prétentieux. C'est si âge.

waaw y' a pas de ñoom ñoo yore bergerie bi. kii génne na taxaw noonu. kii taw am bu ñëw toog waaw mbokk sama gaal. léegi nag euh, dañuy ñëw nag introduit Cheikh ah. Cheikh naa la. Cheikh euh, tey nag euh, ñu ngi fii ci bergerie Ndoumbelane. Mm-hmm. yow nag yaa ñu présenté xar yi. Mm-hmm. champion bi nag laa njëkk a indi. kii nga xam ne mooy agneau bi nga xam ne moo gagné Saladel Saladel mm-hmm. di CTM. tey loo ma mën wax ci moom waxaat ma pénigrém normal euh, wax ma nag euh, na naka ngeen ko dundee moom ba xam ni war na mën dem xool. waaw asalaamaaleykum. Mhm. mais di la nuyu di la jaar bu baax. CTM mhm. mhm. bu ma si ñëwee. grand ran. nañ jël tekk su 1000 francs mu jur maam. mais ku xam ku xam ku xam grand ran xam na ne magistrat moo ko jur. ku xam 1000 francs xam na ne Ramses tamit moo ko jur. <laughs> Ramses. waaw Cheikh Diop moo ko jur. Uh-huh. magistrat Cheikh Diop moo ko jur. kon ñoom ñaa leen boole. Uh-huh. ñu jur Miss France. Uh-huh. ñu jëlaat Miss France tekk ci Grand Rane doomu tamit magistrat la. macha allah ah ñu jur maar. muy Boyzal. muy moom ne dinañ jël teg ko ci Coro. Coro nga xamante doomu Boy Boy Pulla la. mais Coro yaa ji côté dafa laalaat Cheikh Diop muy Boy Galaya. encore. macha allah loolu moo tax xar bi. Uh-huh. boo xoolee moom si côté Cheikh Diop. Uh-huh. foog naa ne kenn am na kay trois fois. Uh-huh. Hmm? macha allah laal Saalum Saalum bi. macha allah booy pour la doomu Saalum la. ok mu euh, ngeen ngeen ko ba muy ndaw kañ ngeen commencé gis nag ki nii eh, kii mi ngi développé lu doy waar. waaw xar bi nag bi mu fi ñëw daaw comme heure yi la fi ñëw. na ko. Ah, daaw daaw ci koor gi la fi ñëw. bi mu fi ñëw ci koor gi. Omar wax na ko trois trois mois matagul. Mhm. bi mu fi ñëwee li mu gënoon wane. Mhm. ci élevage mais nag tey jii koo xam xar bi. fi mu bokk. war na la mën a doy. macha allah dafa am loo xamante ne ni moom éleveurs yi moom. Mhm. du ñu bari wax wax wax wax wax du ne fànn kenn du ko géex. dëgg ndaxte dañu bu ñu demee kër Seydou Diame Mbaye. Seydou Diame Mbaye dañ toog nii. Seydou Diame Mbaye expliqué ñu xar bi fi mu bokk. macha allah te yaay ji cooro 1 mètre la def. xam nga. te bi muy jógee euh, Far Adel daaw 1m5 lay yóbbu. def troisième. macha allah li koy jënd moom mu nekk mbote. yaay def 1m5. bi mu ñëwee fii. Mhm. dawal 5 mois 6. Mhm. Mhm. gis nañ ni xar bi mu ngi développé. mais moom nu nga dafa am nuy façon bu muy màggee ndax nit ñëw ne fi ne ma xar bi di jox. ok mu ne ko da ngay wax teg ko ko fet mais ba si kanam. mu toj yaram moom dégage hauteur. yow xam nga foo naa ne ku ko gis. am njool dootoo waxati si moom njool. macha allah leneen lay si moom. instant bi jóge na foire léegi mi ngi ci du mois ah. treize. na. foq na war a dugg espoir. war ma indi laa ci bergerie bi en attendant dama bëgg nga mosal ma tuuti ci bergerie Ndoumbélane. waaw ah, ma ma maman Jean nañ indi. Mama Aïcha ah Mama mooy doomu gouverneur la. ok ya yaay di di di pote di doomu booy Galaya. Uh-huh. waaw Galaya xam ne ne Cheikh Diop moo ko jur ak première dame. Uh-huh. Mhm. macha allah moom Lamine moo ma ko joxoon. waaw bu mu amee 7 mois. bi mu fi ñëwee. Uh-huh. ak léegi mu ngi toll si ay 5 portes quoi. mi ngi toll mais moom bi mu ñëwee 2022. ba mu ñëwee 2020 mu ngi amoon espoir yi ne woon tënkee. Uh-huh. Sall Adel moom moo si sutoon. Uh-huh. di mesurer woon cent cent cent cent deux. waaw bi muy ñëw espoir quatorze ma la am ren ñëwul daaw ñëw na daaw bi mu ñëw am na un mètre mooy Mama Dia. nga ni moom. Hmm. fu mu jugee nga ni. ci Lamine Sarr moom koy jox. waaw ah. te Lamine Sarr xam nañ ne moo wax bergerie bergerie la. Hmm. ndax moo wax grand bi grand bi ak grand am la. waaw ah. voilà ko. origine waaw ori origine bi. Euh, euh, gouverneur. doomu préfet la. Mhm. mais préfet doomu boy doomu Saalum Saalum la. Mhm. mais gouverneur seexu Chicago la. Mhm. léegi nag Lamine Sarr moom amoon gouverneur. ku mu am mu teg amul 7 set mois 6 mois yooyu. mu tegoon ko si Poté. Poté doomu Boy Galaya. macha allah. kii judd ngeen mi ngi mu ngi si 5 porté pour l' instant. 5 porté mu ngi nàmpal nii. ana porté yi fi moom. porté yi mu ngi fi. am na yoo xamante ni mi jóge na fi. am na yoo xam ne waaw instant bi dafa loolu dafa day nàmpal. ana doom ji. doom jaa ngi nii. ah, ah lay nàmpal. waaw ah ay lañ. ok ñi lay nàmpal. ci koo ko rek. ci parrain. ci parrain. parrain doomu euh, parrain. Uh-huh. Assane moom. waaw bu Daaru Salaam. ok mu may mu tëb si si si maman Dia ma ko fa yóbbu mu may mu tëb. ok mu judd si ay seex yu góor. ah seex yu góor mais moom ku ko xam xam na ne laal na koromox bu mag ba koromox laal na carlo di. ok moom mu laal bari na quoi. ñoom ñaata mois seex yi ñoom ñaata. actuellement ah, un mois et quelque ne la amagul deux le 21. am deux mois. ok ok yi yi yi muy jot am ay góor lañu wala. ay jigéen ay jigéen lañ mu ngi góor waaw mu ngi soog a def ay ñaari ñaari. moom mi ngi doog a def góor. ñaari góor. waaw ah, ok ok góor ak jigéen la defoon mais góor yi dañ daanoo jigéen ñoo ko de sotti. macha allah mais après naa la génne ay doomam. macha allah loolu dugal ma indi ma keneen. macha allah. koo may indi kooku mooy kan. kii doomu maman Jean la. ok doomu maman Jean la. mais uh-huh. DG bi ma fi yoroon. waaw. DG doomu. maman Jean bi dugg léegi kii moo jur kii. moo jur kii. Uh-huh, kii mooy troisième porté. qui mooy troisième portem qui mooy troisième portem waaw ak DG. kuy DG. DG Jibi Gueye moom nga joxoon. DG papa ji mooy Picasso. ok ah. Mhm. yaa ji laal laal booy séeréer. Mhm. laal Marie Père waaw. Miss Cambérène. waaw César. comme moi DG DG la moo jur kii ak Maman Jean. ak Maman Jean kii ci kan nga ko teg mu jor mbote bi. ma teg ko ci seer seer sec. ci seer sec. seer sec Pa Ousmane moom xaabal. waaw di doomu sant yàlla. Mhm. yaa ji laal macha allah bu papi jee. ok waaw mu jur mbote bu jigéen bi jur mbote bu jigéen bi. ok kii mooy kan. kii mooy Ngone fa mu. Ngone fa mu Ngone waaw macha allah. Mhm. moom mi ci ñaar porté. mu ngi ci deuxième porté ma nekk nii. macha allah mais premier porté dafa daanu bi mu amee deux mois. macha allah waaw. ah Ngone rafet naa. ah, ah oui. daal dugalal ma indi ma keneen. ngone mo nek noonu. amagul 2 ans. amagul ans? ok ans instant bi def ak mom wa CTM dang koy. na ah. après mhm. ay ngi boy bi. ans, ah, vous bi CTM fen bi CTM muy deuxième porte muy deuxième domam bu 2 bu deuxième deuxième doo deuxième doomu seetee moo nekk ni bu góor baa ngi ci biir bu góor. ana premier bi. premier bi mu ngi fi après naa la fa génneel. Alioune génneel kii. ok Baye Omar. bi mooy kan moom. femelle bi mooy Ndeyma. Ndey Ndeyma. waaw ah. femelle bi yaay ji doomu macha allah Fatou ok mais papam mooy. Euh, surtout can doomu Candela la papam. Uh-huh. papa ji mooy doomu candeela doomu candeela boobu doomu uh-huh. magistrat bu jigéen uh-huh. nga jël tekk ci candeela mu jur mu jur uh, Salman ok ñu jël Salman tekk ci benn doomu macha allah papa ji mu jur femelle bi mu jur femelle bi waaw ngeen teg ko ci CTM ñu jël ko tekk ci CTM mu jur mboote bu weex tàll bu rafet bi waaw moom ko oh, mboote bi rafet xool ma mboote bi booy quelques jours la am amagul deux semaines une semaine la am waaw macha allah mu noonu oh kon daal premier premier euh, kii wu setem moo nekk loowu setem setem bu ab des na sax ñu juragul ah waaw premier loom waaw moo nekk ñoo nekk ni nga xamante ne ay quelque quelque nen na ñeneen ñoo xamante setem moo leen tëpp incha allah fii weer bi di dee ni incha allah hmm. da dañuy jur ñoom ñëpp quoi. ay eh, agneau bi gën rafet na de. agneau bi mooy premier portem. ah mooy taawu Sadem mooy taawu Sadem. Oh, <laughs> ah waaw laa jàppaloo di. waaw laa jàppaloo di ah. andi ko mooy Baamar ana yaayam. yaay ji doomu doomu doomu DG la. ok yaay jaa ngi nii di yëndu nii. mooy kii nii mooy yaay jaa ngi noonu. ok yaay doomu DG la. c'est du Picasso c'est du Picasso. Eh, mu ngi nàmp moom. adel tuuti waaw comme fereegul. macha allah <laughs> nga xamante ne yaay ji kii mooy taawu CTM. kii mooy taawu CTM. ok waaw kii mooy taawu CTM. bi nga am 5 mois la la la tëb kii. la tëb kii ah 5 mois fàttali CTM mooy. Euh, champion agneau saladel bi ñu génn mu nekkoon euh, agneau bu doy waar bi nga xam ne moom moo defa attraction attraction foire euh, Adel bi tey moom lañ ñëw certifié ci bergerie Ndoumbélane fii tey gis ngeen ko ni mi ngi fi waaye gis ngeen ni mu commencé wàcce ki mooy taawam nekk agneau bu rafet mu teg ko ci femelle bi nga ne moom mooy kan femelle bi mooy Maguette mhm. di doomu DG DG toujours mooy doomu Picasso bi fi jaar mhm. mais yaay ji di aw biko mhm. aw biko di doomu biko ak benn doomu jigéen mu jur aw bi ko jël aw bi ko moom teg ko ci DG mu jur femelle boobu. di màgget waaw. moom deuxième porte moo nekk nii. ndax DG yàggu fi kon xar yi mënuñu ko yàgg. DG 2022 la fi ñëw. ok def un an et quelques daan bàyyi bàyyi bàyyi waaw bàyyi jeune mâle bi. waaw xëj ma femelle bu baax ma xool ko femelle rafet na trop moom it. waaw femelle moom ñaar portée la toll. deux deux portées. deux portées kii mooy deuxième portée. macha allah. Mhm. mais du nuyu Baye Mbaye Diop moom di soo a egg si. Ah, ah. macha allah <laughs> waaw waaw fekkee ko si boole quoi. rafet na léegi nag comme gën waaw ñu génneel la beneen doomu CTM. Uh-huh. ak yaayam nga xamante ba tey tamit yaay ji doomu DG la encore waaw muy bële. waaw kii mooy. waaw kii doomu CTM ngi nii tamit bu jigéen. ah. bii la mooy tawam bu jigéen pour l'instant. ah mooy ko wax waaw. ndaxte moom la fi amul. comme bu uh-huh. mais qui yaayam tamit doomu DG la. ok te DG tamit dafay production bu bu am solo. Uh-huh. ay côté femelle yu paraît. Qui, le premier porteur côté papa à côté yaay. y a un premier porteur. Ah, yaay ji premier porteur. ok Qui est mon mais yaay uh-huh. ci côté y a bu amour mais côté

production seetee am lan lay joxe ba xam dinañ dina jur ñu mën bàyyam wala nu ñuy def. dina jur lu mën bàyyi. ah c'est normal. acca demal parce rek quoi. am na fi ay femelle la yoo xamante ne boo ko tegee. waaw machine waaw femelle bi. Mhm. doomu Baxdaad la. waaw. Baxdaad mel na Baxdaad mel na. ko Konaté jox ñu ko. ok moom it borom baax la wax dëgg yàlla ñu koy nuyu en passage. Mhm. mu jox ñu ko ak yéen sax mu ñëwoon fi mu ñëw dafa tëb woon ci kaw sara. Kawsara doomu Koromoxo la. Koromoxo doomu Picasso la. Kawsara boobu moo jur mbote bi nga xamante di deux mois la am. di doomu Baxdaad mu wax doomu Baxdaad mais doomu Baxdaad yaay ji doomu kilifa la. kilifa moo jur euh, avenir bu Papa Ndaw. Mhm. moom wax avenir yaayu kii avenir ñoo bokk yaay. ñoo bokk papa. macha allah waaw. ok nga ne si kan lañ ko def bu jëm woote bi. si si Kawsara. si Kawsara Kawsara waaw Kawsara fu mu nekk. Kawsara mu ngi ci Lamine Konaté. ok waaw Kawsara rek papa ji mooy Koromoko. macha allah di doom Picasso bële. doom Bagdad bi bi mooy ñaar portem. premier portem moom ah. tamit taaw la kii. taaw waaw dugalal ma euh, ak kan. doomu joxe la. doomu jógee bi nañ jël teg ko si seer sec mm-hmm. ba tey say sec doomu sant yàlla la yaa jël di laal si manga ba mooy mm-hmm. euh, laal si macha allah papi jéeri Ah, mais doomu jógee bi. Hmm. yaayam mooy l'écran. ok waaw bi yaay ji doom l'écran la. moo jur seex moo jur moo jur ay seex seex la. ay seex moo jur seex ah, yi ñaari góor. waaw ngi noonu. di dem Cristiano Ronaldo bu paas man. Seer Seck. sax Seer Seck dafi jaaroon dañu ko abal. waaw kii doomu aas de pique la. Uh-huh. ci jeune jël moom si la bok Arabic Busele ah. Busele. Ah? ok yaay ji doomu muslim bu jigéen. Mhm. nañ jël tekk ci doomu Boy Talla. Mhm. doomu Boy Talla boobu nekkoon ci Badou Dieng. Mhm. Mbour Ramadan. voilà Ramadan boobu lañ jël tekk ci doomu muslim bu jigéen. mu jur femelle femelle boobu lañ jël tekk ci Arabic mu jur kii. waaw ñu eh? la Baye Mbaye waaw. waaw di rafetlu émission bi ni muy tourné. ok di naan fekkee ma si fekkee ma si boole rek. Mhm. dama génnoon aw côté bi man a xaaral ma jaar càmm càmmaale. Mhm. foofu càmm gi gën a neex nag. waaw bu fekkee loo xamante ne nii. Eh. lu lu sedd sama xol la daal. parce que boo xoolee bergerie bi. Eh. biñ ko sosee ba léegi nii grand bi euh, xàddiwul benn yoon. Mhm. te boo gisee ndam yi mu am nii da ko mérité. da ko mérité parce que élevage. dafa am nu muy demee. bu fekkee ne ñi nga nekkal da nga delloo seen xalaat. yaakaar naa ne pour nga am ndam si élevage day yomb. parce que tey jii mënoon na jiital sama copain rek Cheikh bu Cheikh waxee jaar nii moom mu ne non non ma. waaw mais bu Cheikh vigé ba xool ne lii la rek. buñ si waxtaanee rek naan waaw loo leen def daal loolu ba si jeune mal bi ko see gisee xool ko mu doy ko mhm. dafa apprécier na kon c'est bon loolu moo waral résultat bi CTM am am ko si foire bi te tamit des na yeneen yeneen yeneen ndam yoo xamante ne mooy li ma koy waxee rek parce que élevage mhm. bu fekkee ne yow mi yow mi nga xamante ne yaay investir mhm. ñi ma nga sa poche xam li ngay jënd ki lay ki ki kiy jënd tamit xam li muy jënd c'est important sa loolu dafa lu mat a xam la mhm. parce que bari na ñoo xamante ñu ngi dugg si xar mais dañ dégg turu xar na ñu dugg xar mhm. mais ñun loolu fekk ñu élevage bi mhm. par amour nañ si duggee grand bi ba may dem këram fee si kaw sa waaye ñuy ñëw foofu ñu yor ay xar yoo xamante xam ne kii li muy def da ko bëgg waaw xam nga bu li ngay def yow amour nga si duggee yalla mën la see defal lu raw sa te grand bi fi mu toll nii loolu la ko si yàlla defal parce que da si duggee amour xam ne lii kat jaamu yàlla la. bu ko teral yàlla teral la comme mbokk mu continuer di teral xar yi. Mm-hmm. ba tey jii xar yi di teral seen bopp. kon loolu dañ ciy sant yàlla. macha allah moom nag dañ koy ñaanal yàlla. Mm-hmm. comme bergerie bi day soog a door. mu am confiance si ñun di liggéey ak ñun. di ñu laat suñu xalaat te suñu xalaat yàlla di ñu si dimbali nag ñu si am ndam. Mm-hmm. boo xoolee comme ni ko sa waay waxee DG bi ñu ko jëndee si Jibi Gueye di ko nuyu au passage te si la la Lamine Diagne la jógi jógee bu noflaay mu jógee si bergerie bu mag bi ñu ko recruté indi ma yàlla def li ñu bëggoon yàlla defal nañu ko macha allah li ñu bëggoon si DG yàlla defal nañu ko te tamit ki ñu ko jaay daf ñu ko jaay ak yéene macha allah ko jaay ak yéene bi ñu demee ñu indi ko fii boo xoolee doom yi la présenté tey jii famille yi moom la moom la moom la gars yi di di di di présenté si concours yi dëgg la te doom yi nga ñu la présenté yëpp amul kenn ku sa duggagum deux ans dëgg kon donc ñu suñu liggéey dafay soog a door bi ñu gisee ne ñun am nañ si ay ay femelle qualité femelle yoo xamante ne mu ngi si DG defal nañu ko ñun DG soo sóoruñu sax mal xam nga gisoo bi doomu DG. Mm. parce que li ñu bëggoon travailler ñun si femelle lañ ko bëgg a ak DG. Mm. moo tax bi ñu amee ay ay ay yu typé dañ dem jënd ji CTM. Mm. boo xoolee CTM bi mu ñëwee def première doomam. doomu doomu DG la ko defal. Mm-hmm. te xoolool bi bi biñ la wanee doomu DG bi rek. Mm-hmm. biñ la wanee doomu doo së euh, sëtu DG boobu nga xam ne da koy jural ak CTM. Mm-hmm. Ah, da ngay xam ne liñ bëggoon ñun. dèjà ñun bëggoon nañ poids. am nañ poids bëggoon nañ TP. am nañ TP léegi bëggoon nañ hauteur. CTM dañuy defar autorité kon donc ñun suñu suñu suñu suñu suñu xalaat naxuñu suñu xalaat naxuñu quoi kon tamit dañuy jaajëfal grand bi di ko ñaanal yàlla rek yàlla na yàlla dem ba fekk njëriñ élevage bi macha allah yàlla dina ko def jaajëfal grand merci euh, euh, le grand du ma continuer Moustapha Moustapha kaay toog rek ñu gis la ci image parce que. moi je travaille en équipe. waaw ah, te Moustapha c'est équipe bi la bokk. Moustapha mun nga jege si. waaw léegi léegi euh, dernière question rek gis nañ après nak euh, def nga ci fête mu ne euh, invité Abdou Diam jàmm yëpp ñëpp ñëw tey ñu féetee victoire CTM bi lan mo doon kii bi. waaw comme depuis le début rek. li may wax dama dañuy indi benn touche. Mhm. si si élevage mhm. d'accord yar xar bi et tout mais élevage ko gis bergerie ni mel léegi. Mhm. Hmm?

c'est une façon sant yàlla bu baax. def fête bu mel noonu. ñaan nag mu gën a law. incha allah parce que gars yi ni ñuy defar ni ñuy construire bergerie noonu la fête yi war a commencer di mel. macha allah n'est-ce pas ah, en tout cas kontaan boo ma bàyyee nag ma def tuuti comme ni ko mbër yi di defee. sant bi du du si ñàkk. waaw ñu sant soxna yi. parce que des fois gis bu baax. duñu gis lu bare. dafa am nak ay éleveur yu bari aussi yo xam ne jappal jàppale. quelque ay ay Lamine sar tel que jibige tel que Cuuraay. ñoom mënuñu def dara té duñ len duñ len duñ len laaj té duñ len tudd. parce ñom ñu ci si bergerie bi lañ bok Baye mbay c'est notre coach principal. barandal ñi ñi ni jappal donc ñooñu ñëpp il faut ñu tudd leen Toupa sama xarit. voilà quoi Moustapha xam naa ne bëggul mais. non moom am nañ ko jël nañ ko waaw ah, noonu daal noonu daal laay tëjee. jaajëf sinon aussi. Mm. Cissé Dia. Samagal TV. Mm. c'est pas par hasard aussi lan lan defe nii. waaw ah. dama am benn collègue. seen ay émission kese lay suivre. Mm-hmm. chaque jour il me disait mais grand fexeel Samagal TV nga def ñu émission il est à Dakar. tout le temps mais grand dama ñun dama leen di suivre le gars yi fait de bonnes émissions. donc loolu tamit c' est une fierté. ok dëgg la doon na tenir. Ah di la ko di la ko seedeel. te yàlla xam nañ aussi émission ban flash bi ñu def si foire bi. waaw def naa wax naa la ko ça m'a très plu. man la sax. grand bëgg naa après. Mhm. ñu toogaat ñu ñu wax. macha allah kon parce que y' a beaucoup de perspectives yoo xam ne mën na jàll si si. si élevage bi. jërëjëf ñi ñoo yor xar bi ñun yeneen xalaat lan bëgg indi. quand même incha allah si élevage dina nekk bu neexee yàlla. voilà merci bien joxe adresse beeg numéro bi rek. voilà ñu ngi nii euh, cité Sonacos. 77 643 48. ak 642 67 13. ñaari numéro yooyu la. jaajëf mooy contact kontaan nañ bokk sama gaal TV di wax ni satisfaction la ñu nit euh, yàlla def ñu xamante ci euh, Saladel waa may Ndoumaylane nekk ay nit yu baax yu accessible euh, tey ñu ñëw nag doxantu fi si koor gi defal leen émission waaye gi ñu ci gis dal na xel te gëm naa ni war nañ leen xaar ci élevage ndax gis naa fi ay femelles yu doy waar te seetee mi doy na waar.